sëriñ Fallu maam daam galas say gëddu fende say buli laay taaj day rooti ndinde kumar na ñëw naa du yaale xande faw dinaa jooy bay sox du kërim Mbàkke moom a gonde sama cofeel ci moom galas ay door du ko dindaay saa yoo waxee du ko dindee sëriñ Fallou ñun waa Sénégal yow la ñuy bànneexoo gala sa rajo Lamp Fall FM day mel na kon teewaaleel na personnel bi yëpp bu kenn ñëw doon tam ñëw sax mat na sëkk ndax mat na li mu doon ànd ak yéen liggéey bi at yu bare di jëflante ak yéen jëflante bu rafet looloo waral nga am bis mu ñemee daagu ci biir sëggi noo ngi ñaan jàmm jooju yàlla yàgg mi ngi feggoo am soxna Xadi Fall Garmi nga xam ne wax naa la ko léegi ñoom ñaar ak yow mii euh, li wala fi wax ñaar ñuy wër garab boo fekkul bañ koy commencé pour nga wax ko jiit dana jafe loolu moo nekk seen biir alhamdulilah yàlla na jàmm yàgg ñu ngi feggoog seen rakk soxna Anta Mati Thiam muy lu yàgg kon day wane ne groupe Lamp Fall bàyyiwun kenn. ndax bu bàyyi Abdourahmane loo ñëwee sëñ Gana Messere Mokhtar sëñ Abdou Lahad Thioune sëriñ Demba teewal fi sécurité bi kon demee ne personnel bu Lamp Fall ñëpp teew nañu waaye sëriñ Fallou Galass Dieng mi nga xam ne day sa kóllëre kóllëre bu yàgg nga fonk ko lool yitteem jëppit di ànd ak yow bis bi moom it noo koy sant bu baax ndax sàmm gi mu sàmm kóllëre moo tax mu ñëw fii ànd ak yow bis ba mu tollu fii kóllëre nag soxna Ndey ñii fi teew ñëpp mën naa wax ne coloré leen fi bàyyi waaye lu mat a fonk la xam nga lu tax sëriñ Fallou Mbacke mii ngay sant tudde ko sa doom ji muy sëriñ Fadilou nuy ñaan mu gudd fan lool dem ba naan la yaay toogal nag mooy wootee bis bi yàlla na ko yàlla def sëriñ Fallou moomu day dafa nekkoon ku fonk coloré am na bis am waa joo xam dañ ko dox naan ko dafa bañ sëriñ Fallilou waaye am bis sëriñ Fallou yónnee ci moom ne ko na waaj dama ko yóbbu màkk ren mu ne kon seen sëriñ bi baatin bi ngeen koy jiiñ nekkul ci moom ndax bañe naa ko noo xam ne nit du ko bañe nit mu di la yóbbu màkk sëriñ Fallou yóbbu waaj a màkka toppatool ko këram ginnaaw mu dem ba dellu siwaat mu jox ko nganaleem ak léppam ba mu pare mu woolu ko ne ko bi may def lii di la yóbbu màkka du yow yaa tax ma di la yóbbu màkk damay sàmm kóllëre ndax sama borom daa bëgg ko sàmm kóllëre am na bis ca ceen jolof sëriñ Touba am bunt bu muy liggéeyalu kum andi doo ko mën a def na ko sëriñ bi bëggee bañ ba sëñ bi ne ana diw ñu wooye ko mu ñëw ko doon sa bàyyi ba mu ko defaree ba mu àgg bi sëriñ bamba génne def na xakk saa nii laa ko bëggee woon nii laa ko bëggee sëñ bamba jaay tax ma fasante ak sa bàyyi wala bëgguma wala réewoo doog kon wala lu am solo la kon sëñ Fallou Galass Dieng kóllëre googu la sàmm ci yow waaye kóllëre googu soxna Ndeye Fatou Kane ngi noonu feggoo yow nga xam ne lu yàgg dëgg la ngeen bokkoon benn métier bi sans borom dogal ngeen bokkaat kër sëñ Fallou léppam di sëriñ Fallou mu ñëw feggoo ak yow bis bi kon kóllëre googu noonu la mel jànkati xaside yi fi teew noonu la kóllëre googu mel sa diggante ak ñoom kon nag yàlla nay loolu yàgg ci gàttal sëriñ xaadim noo ngi lay siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay ndax yow it rafetal nga lool sa diggante ak soxna nday ba lépp mel ni tey eh, dinaa ci dellusiwaat di sant sunu impaañi bopp ji nga xam ne kenn la ci nun di soxna Faati Géey Baay Faal Baay Faalu sama yaay Sëriñ Abdourahmane Lo da ngay ñaan baax sama borom guddal fanam Ibrahima Cissé ndeysaan di ko bëgg Serigne Saliou noo ngi koy siyaare bu baax mu ngi ni moom it ñëw na teew kon daal Lamp Fall kenn du su fa tey ku dul technicien bi nga xam ne buñ commencé waxtaan wi moo ko war a jàllale en direct sëñ Ousmane Diaw xam naa am na yóbbante bu mu wax nag <laughs> naa ci ñëw incha allah <laughs> ñu jaajëfal leen baax kon dañuy jox Serigne Saliou Samb. bi war a tax murit di taxawal lu mel nii mbaa mu nekk ci leneen. bi ci gën a foor mooy ngërëmul borom Touba yàlla na yàlla na nga ci dajeeg moom ñoo ngi nuyu sëñ lu Dieng ak sëñ Saliou Thiam moom mu dendal dama ko yéex a gis mu jànkatu xasee it moom it leen béggee bu baax xam nga ak cant moom ñu ko sëñ Mor Talla waxee cant moo gën a kawe ci jaamu yàlla yi su fekkee da nga bëgg a xam nan la cant toll sax dama koy wax ci suma waxtaan yu bari nii da ngay xool lan mooy contraire u cant boo xoolee contraire am xam na mu toll cib safaan ci saa si nga xam nan la cant toll ci aw yiw yàlla fu mu tudd sant weddi la teg ci wet gi waskuru nii askurukum waskuru lii wala takfurun la in sakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la sadid sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence bi gën a màgg ci référence yi moom la yàlla waxoon ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana njool makka dafa waxoon ni ataxaddasu bi nicmatillahi sukru wa tarku wa tarkuhu kufr nee na kuy waxtaane xéewali sans borom yi yaa ngi ci sant waaye boo ko bàyyee def da ngaa weddi cheikh ahmadou bamba bi mu waxee lahu sukuri bila kufuri la ci teg ca mat la bu sifaay yi ba muy ñaan yàlla ba yegg ci lu ne mu koy wàccalu barabu safaan ba bi mu yegg see ci sant barabu way weddi yàlla ko wàccalu wa anzili sukra makaanal kufri kon bu fekkee xam nga nan la weer di toll ci safaan rek di nga xam nan la sant toll ci aw yiw kon sant moo gën a màgg loo mës gis Sëñ Tuubaa nag bi ñu waree sant sant ay xéewal ay tax bi ñu waree sant mel ni moom borom Tuubaa dañ koo laaj ana lan moo war a tax nu sant yàlla Cheikh bam ba waxuñu waruwaay yi waxuñu li nuy sol waxuñu fi nu dëkk waxuñu li nuy xewloo waaye bokk gi ngeen bokk ci umat sayyiduna Muhammad la wax ni moo gën a màgg ci xéewal yi leen yàlla defal xaamiduna ni'matuna xewal gi gën a mag ci xewal yi nu yàlla defal mooy bokk ci ummatu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mel ni dañ koo laaj kooku kan la mu wax nu ne kii kooku mooy ki tax seen boroom waxoon malaaka yi su jootal leen aadama la aadama di yàgg fañ ko tëne woon yépp mësta dégg usjudu li aadama waaye keroog ba yàlla jëlee leeru sayyiduna muhammad rof ci ndiggi aadama sëñ tubaa nee na la wax ni su jootal leen aadama bis ni ki tey li nuurihi sajadat amlaaku mursilihi lil jaddi aadama nuuran fihi munkatima sallallahu alayhi wa sallam ñu dañ suñ tubaa kuy kooku mu ne bi muy takk garaat yi moom sayyiduna muhammad seen maam ji ñuy wax aadama abul basar moo ngi ci diggante ban nag ndox nu koy tën noppeegul nu bu watuhu xablal baraaya xadin jalat lahu sappu xiinal jaddu fittiini yuxsanu am na feneen fu mu wax la anta alladi ontita xidman nubuwatan wa aadamu baynal maa i wattini yan jëli suñ tubaa kuy kooku muy ne kooku mooy ki nga xam ni bu yàlla baalee aadama ca lam ko waxoon ni bul ko jege yàgg sa soxna si te ñu dem laal ko te iblis man ma ne leen su ko yàlla baalee c'est grâce à lui jëmm jooju moo tax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi jaahihi faada bil gufraani aadamu min bahdin hibatin min anhaarin wa jannaati sallallahu alayhi suñ tubaa nee na aadama wàcc na ci kaw suuf ba keroog muy faatu saa yu iblis xëyee nuyu ko bëgg koo defloo bàkkaar waaye laggil nañ yaram bi mënatu la def bàkkaar ndax daa war a doon maami sayyiduna muhammad bi jaahihi lam yamil li dan bi adama muslahu daahu laanu min qad uzima ndax suñ tubaa aadama rek la waa ji defal noonu mu nu yonent bu ngeen mës a gis mu def kéemaan waajee ko ko abaloon lakal mu'jizatul xaariqatu allati biha atat lu min xayri lmira jumlatar rusli sallallahu alayhi wa sallam noohu na ci mag sëñ tubaa nee na bu gaal ga teeree mook 83 personnes ya ca nekkoon ñu mucc àdduna bi tukki c'est grâce à rasulullahi yanqooba silmaxa na ñeen fukki at yàlla delloo ko gis ba waaye ci darajey rasulullahi jooy na doom ja ba silmaxa bu doom jaa ko gis loo nag waaye Sëñ Tuubaa nee na du yusufa du yanqooba ci darajey sayyiduna muhammad la najaa bihi llaahu nuuhan bi safinatihi wa jaahu ka fa yanqubal baliyaati ca fee mimi ba najaa bihi llaahu nuuhan bi safinatihi wa yanquba ama asbatuka ama sallallahu alayhi wa sallam maam Ibrahima bi ko Namrood mu jëm ci sawara si Cheikh Ahmadou Bamba nee na bu sama borom ne xul naa yaa naaru kuuni salima sallallahu alayhi yonent bi tudd Yuusufa ak sànneem ca teen ba mu mucc génn ñu jaay ko palais gouverneuru réew ma adopté ko ci darajey rasulullahi la demaatam kaso génne kaso ñëw doon gouverneuru dëkk ba ba noppi doon yonent ci darajey rasulullahi bil muntaxa axrajal ma naanu yusufu min jubin wa min man anha tada wala ma kaso ba bil mustafa axrajal ma naanu yusufu min sinil matini wa min tilkal xiyaabati sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaa nee na yonent bi tudd Souleymane dara war ngelaw di dawal waaye ngelaw nangu lu ko ci darajey rasulullahi la ko waral sëñ tubaa nee na yonent yàlla daawuda weñ mii da ko daa jël di liggéey ay mbubbi comme ak i dal di ko sol waaye weñ nangulul daawuda ci daraje rasulullahi la ko tasxiir lii uli na li daawuda alxadidu bihi wa suleymaana tasxiiran kama fahima sallallahu alayhi na yoonu sa quarante nuits la nekk ci biiru jën bi yow ma asura la yàlla wax jën wi génnal ca tefes ga ko mu gëq ko yaram wa rocc ko yàlla saxal garab fasaasa mu mel na mu meloon mu ëpp ko yaram wa dellu na mu meloon Sëñ Tuubaa nee na c'est grâce à rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa saahibu nuuni lil mawla tajaa fa najaa bil murtaha fa danaha kulla hummati sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi kenn la xanaa et pourtant kenn ku yonent bi yàqul ci kenn ku yàlla gi dara kon kenn ku borom Tuubaa gi du yàq ci kenn ku yàlla gi dara yàlla kenn la taalibab Sëñ Tuubaa du bokkale yàlla sëñ tubaa di sa sëriñ doo bokkale yàlla sëñ tubaa ku ma sa wax yàlla kenn la ci wetam dal na la joxar bi ni la tasxir gee ko yàq boo nee tekk mu ni la del yàlla daal waaye yàlla rek kay buur kenn ko wax yàlla rek day mel ni dafa am ko mu dendal del wax yàlla daal ay buur yàlla rek kay buur ci wetam boo nee yàlla rek yàq del wax yàlla daal ay buur boo nee yàlla rek day mel ni am na ko mu dendal kooku taalibeem du bokkaale yàlla moo nu jàngal yàlla tamit moo wax ne allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kuf an ahad wa sarmadan bil mulki walhamdin farad ashadu annahu l ilahul wahidu wa anna ahmada rasulul abidu moo wax ne lahul wujudu allazi qattaanahu qidamun maa albaqaa'i wa gayrullahi lillahi lu dul yàlla alal yàlla maalikun lahu sharqun wa garbun wahdahu wa kaza lahu barrun wa bahrun yukmilu kooku taalibam du bokkaale yàlla ñun duñ bokkaale yàlla yàlla kenn la kennug njool màkk gi ni mu ñàkkee yàq ci kennug yàlla gi dara noonu la kennug borom Tuubaa gi ñàkkee yàq ci kennug yàlla gi dara Sëñ Tuubaa kennam gi yàqul ci kennug yàlla gi dara l'islam bii moom ak liggéeyal rasul lay suñ Tuubaa kenn la ci moo ko wax moo ni faraxtuhu bi xidamin la saaniya bi ma jàllee dañoo tëj bunt bi ma doonee première deuxième amul la saaniya wax feneen ni yàlla rattrapé na ma lu baax lu góor ma sa def bi mu ko defee ba noppi ku mel ni man du am koo xam ne ku mel ni yow du am nag kenn nga radiyallahu alladi qad fata min alxuyuri wa misali fata am na fu mu wax sax ab xaytani yàlla yaa ma bàyyi ci kaw suuf mujizatan lil muntaxa ma doon mujizaati sayyiduna Muhammad man lam yuwaafiqu nii ku xool ba dëppoo ak ni ma jaar bëggoo faa jaar laqaa maa taxaa mbedd mi nga jaar di dem loo ragal foofa lay jógee da ngeen di daje man lam yuwaafiq nii laqaa maa borom Tuubaa soo bëggee xam fi mu teg yàlla nag da ngay xool fi mu teg bagage yàlla yi moom borom Tuubaa boo xamee fi suñ Tuubaa teg Rasulullah xam fi mu teg alxuraan rek nga xam fi mu teg boromam mën ngaa bañ sax indi lu montré lu mu def ak yàlla mais ni mu def ak njool màkka def kook alxuraan rek nga xam ni moom amul moroom moom sëñ Tuubaa alxuraan fi ko borom Tuubaa tegoon mosuñoo gis ko fa teg waaw alxuraan wàccee ba nëgg ni ku ko teg fi ko borom Tuubaa teg kenn su koo gis bu yoon yónni bu masaana yónni ku wattu sax moom danaa wax bu ngeen di yónnee na ngeen seet ku wattuwul bu ngeen demee ba amu leen ko ngeen door a yónni ku wattu su ma yoon ni ku wattu mu bëgg ñu ko danaan ko doxal li ci sa dënd bi du nekk ci dëndu gone li ci sa dënd bi du nekk ci dëndu gone moom ku mokkal alxuraan dala daa jox cër moom borom Tuubaa daaray kaamil li njaareem jër plusieurs fois wax nañ ne tiim na leen ni leen yéen waa alxuraan maay seen jëwriñ daana waxit ni bu ma séenee ñaar ñuy dox ci kaw suufu si yàlla si dinaa xam kan moo ci gën a diis ki ci ëpp lu mu wattu ci alxuraan mooy gën a diis nag damay wax ne yàlla waxoon Seydina Muhammad dinaa tànn ñenn ci jaam ñi sellal leen ba gën a ma dondulee leen ko summa awrasna al kitaaba allazina stafayna min ibadina ca suratu fatiri aya 31 1300 ans après bàyyi Cheikh Saliou Mbacké ni man la yàlla waxoon maay doon téere bi summa awrasna al kitaaba allazina stafayna min ibadina mu ne awrasani rabbi kitaaballahu fadlan wa la ilaha illallahu awrasani lahu kitaaballahi wa jumlatul kutubi bi hisbillahi nga demee ak alxuraan sëñ Bamba mu ne moo daaw tàbbi ci sama dënd seey saa dënd mokkal saay loxo mokkal farra lik farra farra lik farra farra lik farra farra lik farra farra lik farra lik farra lik farra farra lik farra farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik lik farra lik lik farra lik lik farra lik lik farra lik lik farra lik farra farra lik farra farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik lik farra lik lik farra lik lik farra lik lik farra lik farra lik farra farra lik farra farra lik farra farra lik farra farra lik farra farra lik farra farra lik farra lik farra lik farra lik farra lik farra fa innaka li ilaahu yaay yàlla mi ñu war a jaamu wal mu'inu yaay dimbalaa kon bi ñuy sàkku ci yow dimbal waxoon na nag balaa yooyu yëpp fa xultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu radiya gayra al ilmi wa diini walastu arju wala aqsa siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini anni ufawidu ahwali liman ajazu an xaali anfusihim ajiz al masakini ca xaalulu yarkan aw kayfa yubansuni xubul xutaami ila jiwaari man duruhum rawdu sayatini booba ba mu koy wax sëñ Mbàkke Moroom si lay door a wàcc liggéey waaye moo assumé ko ba ànd ak tubaab bi juróom-ñaari at toog foofa di way ruum naa ni katabtu fil bahri anni laa amudu yaddi ila nasara abidil maa ngi wattii nii maa ngi waat fii ma toog nii mosuma tàllal ñii loxo nga xam ne ban ak dox la ñuy jaamu yaddi li moonin karimin nafiin samadin laali drahimi tati min su lay tiini kon kooku mësta tàllal loxo ku dul yàlla kon aaya bee moo ko wutal kubéer moom fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran mu ne yasara lii mu yasirul asiri ma ajazal wara la daa masiri man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu mu ne hadani al hadi fala adillu an sabilillahi la abdul انظر تا اسرائيل كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا من تفضيل ذي القدره والاراده فضلني وهو لي اراده wallazi xalaqa lakum maa fil ardi jamian mu ne iya ilayya qaada allahu maa lam yakun maa fil ardi jamian benn maa rek la yàlla utilisé sëñ Tuubaa jël maam ji teg cee lahu xitaabi xablu rabbi habli maa lam yakun li saalihina xabli sëñ Tuubaa nee na yàlla jox na ma loo xamante si nii kenn ku baax ku ma jiitu woon amu ko ma wax ni yàllaa nu wax ni yonent yaa ngi ci biir kon boo demee suratul an'am aaya 85 yàlla wax wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullun min as-salihina kon kooku lu mu wax ci alxuraan dëgg la moon wax ni nag moo moom alxuraan malakani alxuraan tamlikan yaddu xafistu ma anzalahul jalilu xab nuzulihi sëñ Tuubaa nee na bi muy mokkal alxuraan alxuraan ñëwagul ci sayyiduna Muhammad xafistu ma anzalahul jalilu xabla nuzulihi mais ni ñu ko toftalee ci kaamil bi Zeydu ibn Sabit dajale noonu laa ko mokkale maa tartiili lu tax nga mokkal mu ni yàlla seen borom moo ma digal ma mokkal bi ma mokkalee mu may ma maay des ci kaw suuf saa yu ngeen xëyee may gën a xew xafistul quran al bi il baaqi bi isnihi wa jadali moo tax saa yu ngeen xëyee gis mu am lu gaa yi mënula am ak ñoom ba àddunay tukki nag saa yu xëyee saa yu xëyee gis ñu tàmbalil borom Touba lool gaa yi mënul koo am moom te day yegg nu tàmbalil ko leneen parce que wa jadali bil baaqi la wax ak ab xëytani mujizatan sama des fi lu luy jommal nit ñi lay doon kéemaan lay doon li muy jommalee mooy barki dem rek bu yàggul maa ngi koy wax ma cent ne 1927 rek ngay dem jarul muy sori 27 ak léegi amagul 100 ans mais ndax gis ngeen fi rek lenn loo xam ni mat na un milliard loo xam ni ay jullit ko def fii senegal wax ni lii yàlla lan ko moomale bu dul kër sëñ Touba toppal fa la neex doo ko gis loolooy sëñ Touba amul moroom loolu mooy sëñ tubaa amul morom. ñàkk moroomam gi du ay wax kese day feeñ ci fee yi am ci kaw suuf si yépp saa yu ñu xëyee di gën a gis ni amul moroom saa yu ñu xëyee yàlla di ko defal lu mu defalul kenn ñuy xam ne amul moroom loolu mooy mbiri borom Touba alxuraan mii nag bi sëñ Touba ne maa ko moom yàlla da ko booleeg doom yooy def nañ ci alxuraan loo xam ni doy na sëkk parce que alxuraan màkk la tàmbalee wàcc Medine la mujjee wàcc waaye Touba la am kër Cheikh Abdoulaye ma Jaxate ko fa def makka la tàmbalee wàcc Médine la mu mujjee wàcc waaye junni ñu bokk aw sant ak nga kenn mokkal looleen leen suñ son yu Mbàkke rek lañ ko mën a xamee. makka la la mujjee wàcc waaye fukki junni ñu bind kaamil te xooluñ ko ci sa biir daara suñ Saliou Mbàkke rek lañ ko xamee. alaaji fallu mii ñuy sant nag moo ci am loo xam ne kenn amu ko ci boo ko ne kañ nga gën a jamono mu ni la jàngal alquran fu sa gën a jamono siiwee mbàkke mu ni jàngal alquran ban bis la mu ni jàngal alquran noo tudd mu ni jàngal alquran looy liggéey mu ni jàngal alquran foo dëkk mu ni jàngal alquran alaaji fallu mbàkke rek kañ nga gane jamono mu ne jàngal isra yi mbaa nga jàng naj mi subhaanallazi yàlla nettali bismillahi rahmaani rahim yi subhaanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi al aqsa allazi barakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir ca naj mi wa huwa bil ufuqil ala summa dana fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba alfuaadu ma raa afatumarunahu ala ma yara wa laqad raahu nazlatan oxra inda sidratil muntaha jibril ak alburaax ñoo mënoon a yem sidratul muntaha moo tax ñu wax loolu sëñ tubaa ni xat baata yasri wa jibrilu sara maahu fawqal buraaqi ila aqsa nihayaat sidratul muntaha lañ mënoon a yem fële mu wax xat haza faqra min hiina asra bil jismi jëhra bi laftiraaji fële mu ne min haala amriya israul ilahu bihi bi ruuhi wal jismi laylan li samawaati fële mu ne huwal kalimu lazi asral ilahu lazi lahu ila ila samawaati laylan jaaliyan sulama fële mu ni salli ala saari sama fawqal buraaxi li sama muhammadin wa karima bi hisbihi wa sallimi xat baata yox rek xotti baa nee na daa fanaan xotti dee lay asamaan li kañ la ñëw sëñ bamba mu ni balaa fajar fa aba fii lay li xablal fajri ya'lamu maa xat aba lay la summa li daarihin sana alaaji Fallu fu sa gën a jamono siiw mu ni jàngal alxuraan wala fi yad'u ila daari salaam ban bis la mu ni jàngal alxuraan yaa ayyuha alladina amanu iza nudiya li salaati min yawmil jumaa faz'u ila zikrillahi wa zarul bay'a zalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamun foo dëkk alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husnul maab noo tudd wa annal fadla bi yadillahi yuti man yasaw looy liggéey wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina sëñ Fallu waykat ba nee ca ama wasa sin la feeñ fa Touba am na ñu naa Daaru la booba ca moomaat la mbër mi génn daaru sañ si Touba Mbakke ñëpp waaru ajjuma tey kësu rajab la takk jundur ilaahi dar ko mbër may bàkko bi su keroog daam dani bu ko kenn nampal fii jant bi so buñ ko jox toggantal bi su keroog wax na ni rasulullahi ñëw na fi ngir juddóom bi doona laahi inni ya abdullahi moom la Aysa waxoon di mim njureel garaw na bu saabur ba defoon ba a wax ci biir muur moo def may wax ni liir bi dina toog bay atte nag weesuwul Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke njibbi àjjana 45 sëñ Fallu woo mbooloo mi ñu ñëw mu af rajo bi ni jumaa ji xeer bi ci njëkk mën a ci ndigalu Cheikh Moustapha Mbacke sama mag ju baax bi ci mujj maa koy teg jiite ko ba mu soob ma sama dund gi sama tenk loxo ma téye alaaji Cheikh Mourou wax ko assumé ko nag yombul sama dund sama loxo ma téye ci moom lañ ko mës dégg te na mu ko waxee la ko defee moo ko liggéey yeggale ko ubbi ko 63 le 7 juin jiite ko ba mu neex ko mu ni bëreet di dem moom sëñ Fallu nit ñuy tàmbalee faatu ñu ni sëñ Fallu dem na nit ñi tàmbalee faatu mu laaj rajo bi ëf ko ne maa ngi nii waaye déw ma fenn ba xelu ñëpp daal ma war a dem kooku El Hadj Fallu Mbacké day wax ni wilaaya ci sëñ Fallu lay am bu fekkoon jubóog yàlla gouvernement la sëñ Fallu mooy président bi wilaaya bu doon gouvernement El Hadj Fallu Mbacké président bi ku mel ni moom ci wilaaya musunu koo gis ku jubóog yàlla ni sëñ fallu musunu koo gis Cheikh Saliou moo fi mujj ci doomi borom tubaay yi moo ko waxoon moom sëñ lu moo ne waaw ah, Saliou mi jox ci waaye sëñ Bamba ji koo mag joxuma ko ku mag joxuma ko waaye moo nu yub moo nu yub ndeke moo fi mujj lu mu ma sa wax yàlla def na ko sëñ fallu Mbàkke lu mu ma sa wax rek yàlla def na ko moo moo moo teggi woon mbaxanaam teg ci bopp sëñ Abdoulaat ni ko xëkk sa Abdoulaat noonu rek bu noppee di yow di man doon bu noppee di man di yow lu mu mës a wax rek yàlla def na ko foofu dégg dara nag loxoom suñ falloo ngi woon ci biir Senghor mi ab chrétien la woon waaye suñ falloo ni woon ne leen ko jàkk jàkk jooju dem na ba faatu ñu koy def jàkk di fay paas di ko defi jàkk 20 jot benn télé rek am senegal ñëpp xoolandoo ko tele bi tàkk ñu wane kees gi ñëpp def jàkk benn jàkku suñ falloo boobu rek waxi sëñ Fallu noonu la am na ko commencé wax ci ci jikkoy sëñ falu ju rafet ak xam ni yàlla daa teral doomu aadama boo ko jéemee toroxal yow yàlla ngay opposé dafa am ko commencé wax Mbàkke da ngaa fonk Senghor mii lool te mbokk ci ahlul kitaab sëñ Fallu mel ni ku dëggandeem wax ci waaye ñu waxtaan ba ba tàggatoo jot ba dem rek des mu wax kooku diw mu ni ko Mbàkke mu ni ko boo daje woon nag mbind fii far fi këyit mbind nekk ci ñu ne maa ko bind ana noo koy def mu ne ah xanaa fonk ko Mbàkke mu ne waa Senghor yàlla ko bind Senghor yàlla ko bind dala daan jàngal te doo mer suñ falu da daan jàngal nit te du mer mas naa toog ju jotaay nii rek di waxtaan am koo xam ne daa ñëw taxaw ca ginnaaw ni damay jaay reen wax ko ñetti yoon nit ñu mel ni ñu ko jéppi xam nga ñu mel ni Saliou Samb ci fanatique buñ toogee ku toll noonu booy wax damay jaay reen doo leen neex sëñ bi laajal boppam ah, ah ana ki ñu woo ko mu ñëw mu ko takk ñaata la mu wax ko ko mu ni ko wàññi ko mu wàññi ko mu fay ko lépp waa dem suñ waxtaan ba jotaay bi war a jeex ah man de damay jaay reen waaw Mbacke looy jaayee mu yokk li mu jënde woon ci waa ji ñu jënd ko ba a sax ñu jënd ko mu raj rajloo ba dal mu daal waaw waaw ndax am yaakaar képp tax ngeen jënd ko ci man de ñu ne ko waaw Mbacke mu ne moom it yaakaar képp taxoon mu toog fii di wax damay jaay reen bàyyi tas yaakaar jullit du tas yaakaar waaw suñ la waxee dara ci moom nag ci yooyu danga war a jàng yow da war a xalaat sëñ Fallou li coow li bari bari mosoo leen a dégg kum toroxal ku ngeen gis muy toroxalaate baadoola la noble du toroxal kenn noble du toroxalaate surtout ci mbooloo baadoola yi ñooy toroxal nit ñi ci mbooloo yi waaw yàlla moo wax wala xadd karam naa bani aadam dama teral doomu aadama képp ku jóg pour toroxal doomu aadama na nga xam ni yàlla nga opposé te yàlla ku ko neex dina la duma ci lii laa defoon nga ni danga koy dindi ku jóg pour toroxal doomu aadama yàlla nga wax ni li nga waxoon ni moom nga def diw mii moom laay dindi nit kenn du ko toroxal wala xadd karam naa bani aadama slogan boobu la ñëpp war a jël nit teral rek na doon juif mais doo ba mu yoree ni bañ ko bindee ñu bindee rasululaay rek nga war a nga ko war a teral parce que yàlla moo teral doomu aadama kon koo toroxal yaa ngi opposé yàlla kooy jéema toroxal sax parce que kenn mënut a toroxal kenn mais koy jéem a toroxal rek yaa ngi opposé yàlla te diw mi ni mu mel neexuma mooy yàlla ni nga def neexuma mais su la diw rombee ak oto bu cher mais yéen a ko ko dem toog ci dara bi ñaan ko yàlla yàlla nga teraanga yëpp doomu aadama tax mu defar ko di mais nga xas ko ci wax ko ci lu ñaaw boo moytu sax nga yóbbu ko ci sëriñ liggéey ko yow ba pare wéet di ñaan yàlla loolu doo ko am nit tabax kër gu rafet nga ni day jaay drogue lu ñaaw lu nekk nga waxal ko ko ba pare wéet naan yàlla këru kër gu mel ni kër diw gi laa bëgg doo ko am am déet mais da ko ko yéene yéenee diw këram gi yàlla na ko ràppal nga wéet ci der bi ñaan ko yàlla yàlla may la ko yàlla séddaleem bi amul fu mu bàyyi dangay jaar góos di def li may def nga jaar góos di ko def ñu toog un duñ gisante say mbir di dox samay mbir di dox mais pourquoi baarante kon nit ñi noonu rafetal seen jikko yi nañu rafetal jikko yi li yàlla def nit mënu ko dindi yàlla pare na ku ne ci li nga war a tekki loolu la yàlla di xiir pour nga liggéey ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké nee na lu yàlla xiir nit ci xëy ca na xam ni am na ca cër bu ca amul woon cër xelam du ca dem Sénégal nag problème bi mooy du ñu bàyyi nit mu def li mu man diwu moo man nangam nañ ko ko bàyyi ku nekk ak sa option yow mécanicien nga nañ la bàyyee affaire oto ah kii bureaucrate la bul ko jéem a remplacer parce que mën nga ko fay jëlee ba pare doo mën sax li mu doon def maanaam ni mu ci aaye mun nga ko rey ba pare yow wala nga jëlee ko fi ci ay ay affaire yow doo ko mën. waaw yow mi ko fi jëlee doo man lim doon def parce que mënewoo ko noonu li ko ci yàlla may moom la ko may mënoo fexe ba yàlla rekki ko mais tailleur bi ay ci tailleuram doo ko bàyyi mu ñëw nga ñëw sa côté yow tamit ah ñëwal sa côté après parce que faw faw kii nekk conférencier kii nekk tailleur kii nekk maçon kii nekk menuisier kii nekk mécanicien kii nekk chauffeur mais loolu mooy adduna bi su ñëpp ñëwoon di tabax li ñuy sol ku koy ñaw ah su ñëpp nekkoon tailleur est-ce que dinañ am kër yu baax yu rafet yu ñuy dëkk kon ku ne ak li la yàlla def loo def ko rek soo ko defee ci sa noblesse di nga ci am li nga ci war a am mais bul ci yàq sa àdduna tamit ci yoo xam ne bu ëllëgee da ngay daje ak yàlla di ko rëccu te faw ñu daje nag ah ñun ñëpp départ nañ te yow ma la am lañ jëm barki xaadim rasul kenn ku ne ci ñun xam nga ne bi ngay am 25 li nga mënoon tey mënoo ko. ñun ñëpp waaye am 25 ans sawarte gi ne woon ci yow rapidité gi nga amoon xam nga ni amatoo ko kon départ nga départ nga de ñun ñëpp départ nañ te ñun dañ doon daw de yàlla ni rasulullaay nee leen mbedd min jaar di ko daw la dee jóge day dajeek ñoom xul innal mawta alladi tafarruuna minhu fa innahu mulaaqikum saa yoon nooyee teg nga paa dee teg paa ngeen war a mbëkkante ana lan moo fi jar yenn yëf yi da ngeen a gisagum kooku faatu ñu ñu jël étage bi yóbbu boole kook ma oto yi nag mbasin yu rafet yi nag ah sëñ Abdou Khadir Mbàkke bu baax mi jàngaloon na nu jàngal boo xam ne war naa doy bépp jullit ñu njuga kebe wàccee liggéey dafa am ku meloon ni ku fanaaw di tari xasida diggante Mbàkke ak Tuubaa di waaxu di jaabante ñu bokkandoo benn tëraay sëñ Abdou Khadir ñëw ba tiim leen war leen a jullee daan ni ana ko ci njuga ñu bëgg koo justifier kan mooy ñu ko mu ne baax na ñaar ñi bu ñu leen di jaawale tey tax xamee naa ko daal di kabar tey tax pourtant foofu lañ jëm te xamuñ kañ la xamuñ fan la ndax li ko li umatin ajal nañu rafetal affaire bi kenn ku ne li nga mën ci rafetal na nga koy def kenn ku ne li nga mën ci lu baax na nga koy def lu nekk ci sa xol bi luy gàkk xeexal ak moom ba mu dañ. fee réussite bi mooy xol bu mucc ayib yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man atallaaha bi qalbin salimin xol bu mucc ayib mooy réussite yow mal xiyaam sëñ Abdou Xaadir nag daf ne woon kaw suuf pexe la baaxoo waaye biir suuf dëgg fi dox kaw suuf pexe la baaxoo ku ne mën ngaa fexe ci kaw suuf ba ku jóg woo la ku ne di la tiitaroo waaye fii dëgg fiy dox de te fi leen jëmaa départ nañ mais fii la ñuy arrivé fii la ñuy wàcc dañuy wàcc ci àll ci bàmmeel yi de waaw mu gaaw dañuy wàcc ci bàmmeel yi mu yéex dañuy wàcc ci bàmmeel yi waaw. Serigne day koo xam ne euh, waxtaane ko bari na lu ci daje dégg naa mag ñi daan wax ne ku ne na nga mel na nga mel fay na ko. loolu mooy tekki hal jazaa'ul ihsaan ilal ihsaan yar bi ak teggin yi ak baax gi waral na tey bu fi kenn nekkuloon jotaay bi xam nga qualité ak quantité bokkul manoon nga tànt fii ba mbedd ma te ki ngay defal genn leeram du ci jotaay bi ngay defal sëriñ fallu sëriñ galas mii sëñ abul baraka mi xalifab sëñ fallu di way juróom mu ñëw teewee jataay bi te ñoom boo leen tegee ci balance teg ñi ci des ñëpp ci balance ñu wat leen ñoom ñooy piir ñi waaw moo tax mbooloo lu mu bari bari te amuñu mel ni sama classe gi amuñu solo bu ca kenn teewee rek matal la ko sëñ galas mii kenn xamu ko ci ay jéego lu dul lu ñuy defal Sëriñ Tuubaa luy ñuy defal lislaam fu ma dajeeg moom ci loolu lay dajeeg moom kon moom dolli naa sagal jotaay bi Sëriñ Fallu nag day koo xam ne ku neex a waxtaane la ndax bari nay ngëneel bari jëf ba nuy xar baax dama ci bëgg a wax man tuuti rek yoo xam ne ginnaaw ñi ngi koy enregistré jéem ko sukkandikoo ci ay mbind yoo xam ne borom yi xam-xam ñoo ko bind jëmee ko ci sëñ Fallu wax nu ay jikkoom ak i meloom mi tax tey nu daje ku ñuy wax Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari Cheikh Ibrahima Diop ci magi Serigne yi la bokk ku bari xam la bokk na ci ñi ëpp luñ tagg Serigne moom bi sëñ bi nekkee ci géej gi nekkuloon murit moom sëñ sëñ Ibrahima Diop Mashari kilifa la woon fa mu nekkoon di mu xaddam mbooloo mu bari topp ko dafa tabe woon nag lool ba ak tabam kenn mënu ko takk bi sëñ bi nekkee ci géej gi nag daa amee woon bor juróomi téeméer mu bind ab leetar euh, la ñuy wax ne ko gasul waaye dama ko laajaat sëñ bay laa jóob te mooy xalifa sëñ Mbàkke Jóob Kalsaan mu ne ci garabu xel reen ba fel jëm penku ca la kepp téere ba lettre ba wax ne rasulaay na ma fayal téeméer Ababacar téeméer Omar téeméer Ousmane téeméer Aliou téeméer te boobu sëñ baa ngi ci géej gi ba mu ko fa defee ne da ko fàtte daa fàtte woon ne sax defoon na loolu fàtte ko fa bi sëñ bi jógee ci géej gi ba ñëw sànnoosi Cheikh Ibrahima Diop Machar ak sànnoosi sorewul mu ne naa dem siyaare ci sëñ Tuubaa ndax ginnaaw li moom ci liggéey ba ñëw ma ndokkeel ko sëñ Moustapha Xasaay it nettaliwaat na ma ko guddi googu ñii laa àndaloon li ma jox ci ay yére biñ ko calculé ay millions yu bare bari la mu ne ma defe woon naa ne samay rongoñ kenn mënatu koo sotti defe woon naa ne ku xam lu lii nga xam amul ci yoon bari na lu may sol ci ay mbubb yu ci bari moo ko jox keroog génneel ma kagguy sëñ Tuubaa yi nag nga xam ne la ma ca mën a mokkal keroog sax sëñ bi defal na ma tawféex yi bi mu ko ubbee rek wala ci bari mokkal barke Sëñ Tuubaa loolu moom yàlla may nañu ci lu bare bare yoo xam ne am na loolu dama ko ca nettali fan yii sax sëñ sama na ma murid yi boo leen toppee da nga fi rakkaaju ba wax fi loo xam ne denc ko ba ko waxat barke Sëñ Tuubaa dama moo moo tax ma côté ko bàyyi bàyyi bàyyi ko te benn bayit laa ci wax rek boobu li indi ci bi yëngu sëñ na ma bàyyi ko boo toppee loolu ma ne li ma ci am sax dama ko bëgg a def sama mihraab bi suul ko waaye xoola ki bind ab lettre denc ko ci garabu xel ñëw nuyu sëñ bi ànd ak ñi mu àndal bi waree jóg sëñ bi ne ko borom leetar bi mu taggook sagoo Sëriñ Tuubaa joxoñ ko kocc yoo xam ne ñaari kocc sëñ bi ne ko xoolal ma ko mu wàññi bii mu am ñetti téeméer mu wàññi bii mu doon ñetti téeméer sëñ bi ne ko beral benn téeméer bi mu ber benn téeméer bi sëñ bi ne ko téeméer bu njëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la ko jox benn bi Ababacar benn bi Omar benn bi Ousmane benn bi Ali na ko benn téeméer bi nag maa la ko jox ndax yónnee bi rasulullahi bi jaar ci man nga xam ne ba mu gasee lettre bi ba dencee lettre bi lettre bi directement ci Sëñ Tuubaa a dem rasulullahi jël yónnee bi jox Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Diop moomu nag moo doon wax ne euh, amatuma genn bëgg ci menn mbir wala benn jublu lu bu Sëñ Tuubaa wax ne rek laa tatlubanna min siwaahu lfadlu sa taabin fal fadlu min gayrihi xad kaana sàkku ngëneel di jëm ci ku dul sëñ ndax foo jëm dara néewu fa sëñ daf nekk daal mujj na nag wasaara yaxbitu nii man kaana maskanuhu fi batni bagdaada aw fi misra aw faasi léegi nga may ñee waa Faas nga may ñee waa Misra nga may ñee ngir am gi maam Serigne Touba cheikhun bihi xat unilna kullu makrimatin xatta bihi rabitatna ahlu baghdada wa ahlu misra wa man fardu kullihimu akrim bihi min imamin kashifin daada njiit laa ngi nii sëñ baa ngi kooku nag moo nu porté leen sëñ fallu dana sëñ fallu yabunul xadimi ladi yudaa bi fadilina maanaa la fadluka laa unza wala dakaru sabaqta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadaili lam tusfar biha fikaru laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta bahran min al anwaari dana ko sëñ fallu doomi sëñ tubaa sëñ tubaa am na doom ju ñuy wax sëñ fallu ay ngëneelam góor amu ko jigéen amu ko maanaa la fadluka laa unsa wala dakaru na ko sabaxta jiila jiitu nga say kem say maas fi ilmin wa fi ci xam-xam ak teggin wa fi fadaili lam tusfar biha fikaru ngëneel yi nga ràngoo yow sëñ fallu am xel mënu koo xalam waaye laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta baxran min al anwaari tasdaxiru dangaa sosoo ci jant ak weer jant bay sëñ Tuubaa weer bay soxna aw busu waaye yow nag yaay géej bambulaan yow sëriñ Falilu nga xam ne kon la xattana shati min shamsin sëñ bay jant al awliyaa nujuumu wa shamsu ahmadu bamba wa hum ka misla uyunin wal baxru ahmadu bamba la in kaanat al xawmu al akaarimu anjuma fa shashayqu shamsun qad aala al badra sana wa in hum uyunan suma gadaw an xuraa fa sa seyxu baax gaa yi yàlla yi boo leen nattee ay biddiw lañu sëñ Tuubaa mooy jant bi buñ góorgóorloo ba di seen baa nu doon di dex sëñ Tuubaa di géej mbàmbu leen loolu la mu ne sëñ Fallu nag sosoo ci jant jant bi mooy sëñ Tuubaa weer wi soxna wa busu waaye yow yaay géej mbàmbu leen loolu sëñ Musaa moom la way ne allahu sul fadlul azim ku mu jox ngëneel déefi la yéem faadilu mooy fadlul xamim turam wa doy na xarnu bi mooy doom yi shamsun ko jar moo namp yaari weeni mooy bambatee ci xarnu bi sëñ Moussa Ka it waxaat feneen ne ballu ban nu juumun biddiw safut weer sëriñ faadilu mooy weer di jox leeru alil fadlu mislun fala taxiisu ngeen seere ne leen siin ba sëriñ fadlu lay def sëriñ Tuubaa sëñ Moussa Ka bu leen fekk maami ngonk kat ngeen koy jaawale ki góor daal na ndax sëñ Fallou am na maas ku ni mel ñu ne déedéet am keneen ku ko tagg wax ne jabulul xadimi ladi ma xadla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaqatuhu nee na sëñ Tuubaa am na doom ji di wax sëñ Fallou joo xam ne kenn du wàccu ëttam di sàkku ndimbal wala nga bëgg dara te joxul lu aji sa lu kawe sa jot ndax du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal Fallou xandiyu la moo di koo xam ne it moom Serigne Fallou benn bi ko nee na man waddahu odda min al axyaari wa man jafaahu odda yi axyaari na ku ko bëgg ku nekk ca gaañu baax ña lañ lay boole nee na saa yoo xasee sopp ci tànnee fi nga bokk waaye ku ko noonu nag ca ñuy yées nga bokk kon boo bëggee Sëñ Fallu rek bokk nga ca gaaye man waddahu odda bil axyaar man jafaahu mu di koo xam ne it moom Serigne Fallou dafa jaay lim am ci Serigne Touba lépp jënde ko ak taalibe jaay jureel ga jox ko Serigne Touba addiyee ba mu ko jëndee ba noppi ca xasidaam ga mu doon wax ne yaa na fii nafisal murtaja yaa fatihan maa kaana qablu murtaja biatu bu nuwatiya bil irada lakum li kay owa bi xarqaala wa baxdama charaytumuha minni fa inni ahdituha lakum bi xeyri man sëñ Fallou dane sëñ Touba jur gi nga ma jur ngay sama woy jur maa ko jaay bi nga ko jëndee ba noppi jox ma njëg gi ma la ko jaayee maa jëlaat njëg jox la addiye tana du ma ci ñaxtu ci benn wax moo tax waykat ba ne wax ne aw yoonu làmp di muridun saadixun seey ci Serigne Touba ba mel ni sukkar su tab bi am ndox naat ba mel ni ab dër daa jaay lépp jënd kook bi roy doxinu Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridine nekk koo xam ne it dañu doon won sëñ Tuubaa dinu ko fotool moom sëñ Fallu xam nga bu nu koy taggal wax ne xat jaddada diin fa aboxa kannahu banaaw xat banaaw nee na sëñ Tuubaa moo tëj jiit yeesalaat diine ba mel ni moo ko tabax daan na kooku nag xubbi lahu dahra yuxni an xubbi siwaa sëñ Fallu nee na sama xol bii boo ko nattee tuutoo ca fekk lenn lu may bëgg lu may sëñ Tuubaa maanaam ni sëñ Tuubaa def Rasulullaay ne jumlatu maali wal midaadi wal xalam hadiyatu lil Mustafa baabi niam juttu lahul yowma bi ruuxi wal badan wa waladi walidaya fil alal ni ko rasulullaay defee ci ci ni ko sëñ Tuubaa defee ci rasulullaay noonu la ko sëñ Fallu defee nee na sama xol dara ku ci man Mouhamadul Fadal loolu du bëgg sëñ Tuubaa daan na waaye bëgg googu nag yazdaadu fi kulli xiinin maanaam saa su ne fraction bu nekk bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa day yokk man sëriñ Fallu ba yegg ci ne saf ko du moo ànd xubbil xadiimi fardan ara sotti sa rongoñ ñu ne lu tax ngay jooy nga ne bëgg sañ Tuubaa sëñ falu nee na loolu farata la xamal nu rek ne ko mel ni sëñ Tuubaa amut mu tënk ko ci njëlbéenu goy wa yaa raiman mitla cheyqi mahlan falasta taraax yow miy sàkku ku mel ni sëñ Tuubaa defal naa ko doo ko gis moo tax sëñ jéeri baa daan sugu mas naa gis sëñ falu ci njëreem na ko li ma lay wax nag yow sëñ Fallu sa bàyyi sëñ Tuubaa sax génn ci daan na ko ku ne war na laa liggéeyal ku la mënta war naa wut ponkal mu lay liggéeyal yow nag dara warul ci kenn ku ne la war a liggéeyal ku ko mënut wut ponkal ma lay liggéeyal te Serigne Touba moo ne woon li fi man danaa ko def ci fallu bu ci xajut ma xaj-xajal ko ci muy koo xam ne it da doon dund rahmatal muhtaat xajoo ñëpp moom Serigne Fallou ci yërmande ju yaatu ju nekk ci moom loola la cay misaal ba du boddee du goddee nekk mushkil li shaakin bi shirun li baakin ku ma sa jooy boo ñëwee ci sëñ Fallou mu faral la say rongoñ waaye ku ma sa jàq boo ñëwee fi moom mu dindi la ak sa jàqare daa ma kilifa googu sëñ Fallu dana ko teeg maa gane si mu ne ko man Mbàkke damay ëttu damay damay ganug sën maa bari taq-taq sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu wayef na tong ci kaw bu duus ñëwee na ko xajoo naa seen lépp lu diis boo ñëwee ci lu lu sikki lu diis diig waaye lu wayef tong ci kaw bu duus ñëwee na ko toneet mooy xajoo naa la loo indi mën naa ko supporter moom Serigne Fallou nekk koo xam ne it euh, li mu gaarante wax ne kuñ ma tudde moo ngi ñaari way juróom mënuma kuñ ma tudde ma wutal ko mbootu baa ma wut xorom tudd waaye kun ma tudde moo ngi ñaari way juróom maa leen waralul ajjana man Fallou maa leen waralul ajjana nekk koo xam ne it doxin wu rëy bi ko suñu borom jagleel mboolem ni mu bëggee Sëñ Tuubaa la bëggee mag ñi fi ne boo demee da ngay fekk ci mbindam mu ciy tagg maam borom saam di ci tagg maam na borom daaru gis nga borom saam ba mu koy tagg egg na ci li xablin xatta wattanu faxaaru nee na waxuma la dara waaye barab bi ñu denc borom saam muy maam Mor Diarra day puukare woo yeneen barab yi ci ëmb gi mu ëmb borom saam ba muy tagg borom daaru it ataytu ilal mi'ta'i fi daarihi al mu'ti li yushki shakwa al qabd minni bil bast xamilu xisaalin saabitu jëy humatin alifa nada fi ba muy dem ci sëñ ma sàmba it gis nga kaana ma sàmba man المستفيد ومن جن إذا ما الناس قد خهدوا تراهم حاكفين حوله لما سهموا لما سيرمي لهم كأنهم يوبيتون noonu lay def waxtu ne mag ñi nga fekk ci biir këram mu tuddee borom saam maam Cerno nga fekk ci biir këram mu tuddee Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine sëñ Modou Massamba Diop Sam sëñ Modou Mbex sëñ Xabban Mbakke kenn ku ci nekk relation boobu mu am ba noppi jël boppam it jeexal ko ci biir njabootu Serigne Touba nga xam ne foo dem ci ëtti Serigne Touba yi xam taxawaayu Serigne Fallou ci yërmandeem ak xajoo lépp ci ci ñi fi nekkoon nekk koo xam ne it suñ borom da koo jagleel wala si xusa bi kun dañ ko jagleel kun fa yekkoon lu mu wax maam dama dañuy wax ne Serigne Fallou bu nee na taw mu daal di taw bu nee du taw du taw daa am ko ko doon weddi nag wax ne taw moom yàlla ko moom ndax du am murit yàlla nattu ko mu jóge Dakar yor otoom def ci ay bagages génn tëngeej rek xiin wi sax yàlla si xiin xiin wala nam këris te amul baas walaat naa tey de moom dinaa isin boroom na taw mu taw du taw du taw bàyyi dañu fal léegi-léegi yàlla si ne tar ak dóor aw yëngutu dënn gi yëngu mu ne maa ngi ci biir borom na taw mu taw du taw mu taw rek maa ngi ci moom léegi-léegi mu yëngu mu wax loolu rek di dawal ba ak si Mbàkke dugal otoom ci gaaraas bi jóge ci gaaraas bi jëm néegam rek xiin bi so taw xëyee suba teel nag mu ne day dem nag siyaari ji sëñ soxna si ne ko xanaa danga dajeeg ponk lu murit ma la waar nu ko ah, waaye dinaa siyaari ji sëñ Fallu lu mën a xew naa dem siyaari ji sëñ Fallu nee bi mu ñëwee laaj sëñ Fallu ñu ne ko ma nga dindi ba mu ñëwee dindi laaj sëñ fallu ñu wax ko fi mu nekk mu wuti ko nga xam ne mës a gis sëñ fallu sëñ fallu mësu ko gis waaye nee na bi mu ne tegg tànkam ci buntu néeg bi jàkkaarloo sëñ fallu bi mu daataan nuyoo rek sëñ fallu da ko joxar bi na ko del baas waaye nawet baas waa ji da dal ci suuf ko yow yaay borom na taw mu taw du taw mu taw del baas waaye nawet baas nga xam ne waxagu dara rek mu ko del baas nawet baas mu ne dal ci suuf xam ne kii mooy boroom na am mu am borom du am du am loolu la ko yàlla séddee woon moom Serigne gis nga président de la république bi Senghor dafa mas a ñëw Serigne Fallou bay ñibbi bàyyi góor a sëy nettali la ma ko ba muy dem daal na Serigne Fallou damaa fàtte damaa juum damaa am lu ma fàtte mooy damaa jëm ci yoon bu sori te am yu may ragal ragal ñaar mooy pakk ak gàllankoor. sëñ Fallu ko des na la ko buddil te dala doo la kar te da ngay toog ba doyal te kenn du la rey maanaam mooy kenn du la coup nga xam ne loolu la defal ci koor gis ngeen taalif bi sëñ Cheikh Fall Baye bu góor boobu mu tawatee andi ko sëñ Cheikh mu ne na dem sëñ Fallu ba mu ñëwee lu ko sëñ Fallu wax loola dal mu ne ko lu kenn xamul mu ne lu kenn xamul baat jàmboor mu daal di wér gis nga bi ñuy wax njéeréer yi nu aliye la waxtu tool yi lëndëm këriis ndax njéeréer yi wàcc ñu wax ko sëñ Fallou mu ne jàpp leen ci benn jox ñu jàpp ko benn jox mu téye ko na ko yow mii waxal sa moroom yii lu jóge ci tool yii dañ koy def ci jumaa ji dañ daan wax ne njéeréer du dox guddi waaye keroog njéeréer gi dana ci ruuba tolloog moroom yi rek def genn saw ñu ñu xëcc moo tax Baye Omar Kane de nga wax na ko gisal njéeréer yi daan yàq tool yi moo leen ko aaye ban génn réew kon sëñ Fallu yërmande yàlla la ju daj ñëpp ci kaw suuf ñëpp xam aw meloom ak doxinam waaye ñëpp bëgg ko nag góor bëgg ko jigéen bëgg ko defe naa sëñ Fallu da ngay dégg njaagob sëñ Falloo téejaanub sëñ Falloo naarub sëñ lu ney sëñ Fallu daw laqatu ji rek ngir melo wu rëy wi nga xam ne yàlla bindee na ko sëñ Fallu mu xajoo loolu àdduna bépp di ko tudd koo wax mu ne sëñ Fallu koo wax mu ne sëñ Fallu ngir melaw yàlla wi ne ci moom ak yërmande jure ji nekk ci sëñ Fallu ak doxinu sedd wi nga xam ne dox na ko koo foo dem ci àdduna boo nee sëñ Fallu rek am loo yëg ngir fam nekk ak nam def nit ñi ak nañ ko téye ñëpp yi bëgg ko nag te bëgg gañ ko bëggit dañ caa boole kenn ku nekk buy wax day ñaan ci barkeem defe naa juróom-ñaari sëñ Falloog lenn lu nekk yaa ngi koy dégg te jenn yaakaar du tas ca la ko nit yaakaar kon defe naa ku yàlla may lii soxna lay Awa def am doom mu tudd sëñ Fallu nga wooteel ko bis anniversaire ko ci xasaayid yi ak waxtaani baaxul sëriñ Tuubaa gi loolu mooy li am solo maa ngi nuyu sama nijaay Fallu Gala Silla mi ak si léegi moo xam it di ko gërëm lii nday awa def lu am solo la sëñ bi baa ngi lay seereel nit ñii groupe Lamp Fall nit ñu baax lañ nit ñu yiw lañ nit ñu yaru lañ li leen yàlla boole mooy sëñ Tuubaa ñuy ñu goree nag ñu baax ndax ay gor lañ doon fàtte démb te doon goree di te doon daw jaay ñu seen ngor fenn it waxuñu kenn leen moom it nag ku du sëñ Tuubaa kon àndali danoo ànd ak yow ngir sëñ Tuubaa rek waaye kenn waxuñu kenn fu ñu signé contrat kenn ne yaa nu moom amut waxuñu ko kenn ku du sëñ Tuubaa waaye dañ di gor nag ngor googu moo tax tey jii yitte yu bari moo dajee ci noonu waaye dama am sa sax rus ci lay aw waxati ma bés bi te ñëwuma ci Wolof Njaay nee na cëru bëgg yëpp ni toll nu nu te sëñ Mourou Moussa daana wax ne bu la nit wutee bëggee da koy sàkkalu lay mooy liggéey bi nu nekk muy jàng muy waxtaan xam nga sëñ Touba. boroom xam-xam yu rëy yi sax xam nañ ne dafa am dafa am diplomatie maanaam bu dul baatin beeg lu mën a doon dafa am diplomatie Sëñ Tuubaa fi ne diplomatie Sëñ Tuubaa buy xuloo sax buy tontu dara ci bayit boo jàngee bayit yi da ci fekk diplomatie bi ci nekk xoola bi muy wax ci Masaalikul Jinaan di wax gaa ñi wasaatul midaani laa yux fiiha ibaa u namlatin sulukan fiiha xoolal boobu diplomatie bi mu ci dugal wane ne daal xàll wu yaatu ba naari góor yi di ca dox bu xorondoom bang ko ci dojam it ne du ma ci jaar noppal na ko léppam noonu la maanaam sëñ Tuubaa léppam dafa dafa dafa tege ci diplomatie mu nekk koo xam ne it dafa yiir ñëpp xajoo ñëpp kon loolu euh, mooy doxin wi yàlla noppi na yemalewul dara nag dara lu yemale amut waaye lii day awa def suñu xol sedd na ci man ñu àndee ba léegi de wax dëgg yàlla man sañ na maa jël kàddu ci làmp faal bu ma waxtaanee sant ko dafa am koo xam ne dafa am buur bu ko bëggoon lool li tax soxor baaxul buur bi da koo bëgg day jékki-jékki rek bindu leetar jox ko na ko demal dëkk sàngam may naa la jur ga waa ji moom it day départ bu demee ca dëkk ba joxe lettre bi rek ñu ne ko ah, buur may na la nag yi may na la xar yi may na la nangam waaye ci biir dag yi nag am na ci ko daa daa ind waa ji ci li ko buur bii defal te waa ji di ku baax nag mu ne kii daal dinaa ko sakkal pexe dinaa fexe ba buur bi ray ko daal di koy invité añ fekk dane buur bi gis nga sa waa ji li nga koy teral lépp nee si sa ngi xet gi neexul wax ko buur bi buur bi na ko ah mu ne ko baax danaa la sakkal firnde daal di invité sa toggal ko ceebu soble waa ji añ ba toll ci raxasu bay kii rek mu ne ko eh fàtte woon naa ko buur nee nag une heure na nga ñëw fekk une heure a ngi jot sa na ah comme woo na ma koy jotaay mu départ daw di wujj buur bi bi mu ñëwee di wax ak buur ginnaaw gëllax ndikuwut xet ak soble gi tax mu dumóoyu maanaam bañ a jàkkaarloog buur bi ngir war mal buur bi nag en daan na lii lañ ma doon wax kii kon nee sama gémmiñ gi xet gi neexul ba tax may wax ak man muy dumóoyu daal di bind lettre bind ci ne kii di ñëw bu ñëwee ni ngeen ko rey fees ko yéen waa dëkk boobu daal di ko jox lettre bu ne ko yàgg nga koo def de defati nga lu baax de daal di jël lettre bi denc génn daje ki ko kalaame woon ak buur bi mu ne ko loola buur wax mu ne ko ab lettre ma jox rek def na mu daan defati mu ne ko lettre bu tey bi moom may ma ko waaje na ko ma lettre bu tey bi nag ah yow buur da faral mu ne ko amul solo man yàgg na ma teral jëlal jox ko lettre bi sa waay rëppatal wuti dëkk ba yegg na cëpp na jàpp lettre bi gars yi liir na ko ndigal li may buur nee na la rey mu ne déet da koo jox ñu ne ko ah, ku fi indi la wax ki lettre bi ku ko fi indi xoolal kee xolam bu rafet ak yéeneem ju baax la ko ci yàlla faye kon nañuy yéenante rek lu baax yàlla noppi na sëriñ bi nee na yitte ji moom ginnaaw soxna yee woote tey sant sëñ Fallu nee na kaddu yi day jooy jëm ci ñoom rek nee na li waral mu di ci wax it mooy daa am yéene ci yéen ëllëg gi réew mi lépp baax te nee na mbooleem adduna ak àllaaxira suñ borom ci seen biir la ko taxañ nee na kon yéen bu ngeen góorgóorloo rek lépp baax waaye bu ngeen yaafusee maa ngeen sàggan rek lu bari paralysé kon nee na mi ngi ñaan ci barki Cheikh Madinil Fadal yal na suñ borom dollee gindi ñëpp gëlëmal saytaane ci sunuy biir ba du ci am ndam njortu naa ne nag bakkan moo ñuy not ñun waa kër sëriñ bi waaye saytaane moom awut ci ñun wàll na jëy taman bi yàlla taxaloo ko ma amina sayyaatini fa sukri asmaa kon nekkul saytaane waaye bari na ci ñooñ ah, bakkan moo leen di not nee na kon yal na suñ borom gindiñu ah, marale ñoog sëriñ bi ba yooyu yëpp dara du ci am ci ñun aw yoon ba ni ab taalibe war a mel sëriñ bi dimbali ñu ba ñu mel ni maa ngi jégg lu baax nag ah, sëñ Ganna damaa xaw a yóbbu ba daanaka <laughs> ndigalul sëriñ bee ñu wax la waaye sëñu wax ndax moom day sunu kilifa ci lépp ba ñuy sëriñ Fallu maam daam galas say gëddu fende say buli laay taaj day roodi ndinde kumar na ñëw naa du yaale xande faw dinaa jooy bay sob du kërim Mbàkke moom a gonde sama cofeel ci moom galas ay door du ko dindaay saa yoo du ko dindee sëriñ Fallou ñun waa Sénégal yow la ñuy bànneexoo gala sa ndindee saa yoo waxee maam góor du ko dindee amul murit amul tiijaan amul laayeen amul kanaba sëriñ Fallou ñun waa Sénégal yow la nii bànneexoo gala ca ndindeey gaa jamaa biir kenn du ko jëndee jaaro përëm mbaa te حيبي يا سمدي في القلب مني واجدني غيرنا بما سمدي وسدني مسنون يا أكرم لم يزل برق قدرا يا من لا تبقى علي مجنون لم يسل برا ومقتدرا يا من دوت علي مجنون يا من لا علي مجنون يا من له من أفعال مجنون أفعالي مجنون من أقوال مجنون كونت لي كل خير كنت راجيا لا خذاب ولا لوم وتخليني كونت لي كل خير كنت راجيا حساب ولا لوم وتخدير وجيلي اليوم كان لا يفارقني بل دون ما سرين فلو سرين فلو سرين فلو سرين فلو bëgg Serigne Fallou Mbacké baaxe ba atin ba rëy na yow feeñ na am naa xam nga siiw na dëggal la réew mi rey naa rey naa Sëriñ Fallilu jumaa ji maat na courant bi ñëw na ata ndox mi wal na jumaa ji maat na ñëw na tanox mi walla sëriñ Fallu ngooru may ñaan yàlla mi di rahmaan moo ñu mësoo daan di gun way wi mare bismillah may ñaan yàlla mi di rahmaan moo ñu mësoo daan di lu sëriñ Fallu baaxe way ku yàlla baaxal war na waaju am xel waxal ka ñaanoon tax nga doon xureere baax leen waxal sëñ Fallu way ku yàlla baaxal war naa waaju am xel sa xol ka ñaanoon tax nga doon xureere على الذي تسره أحرادي هدمت باطلا بخط خط خبل وفر إبليس عن دري كبل هدمت باطلا بخط قد خبل وفر إبليس وعن دري كبل عمدا وأحسن الورى المجمل لي خلد الحسنى من المكمل أمدا وأحسن الورى المجمل لي خلدت حسنا من المكمل جوات الخلق وهو

تبدي ربي وأنشر ذكرى جماعة الوضع والنصر صورا مصطفى سلتي تبتي ربي أنت الله جماعة الأنواع والمحسن صغرا ليس ترابي عشل صغرا جماعة الخلق والمحسن صغرا مستوى وجهت واتلا بدل كلمة لله كالكبرى

عبدنا بودايا ومتعنا في الذي نبي بن يرز الكبرى على ليس

ملت لجولة الأمراء صلى سترا بهذا الأزواج سبحان الله والمحسن سوى متوى